aousubillahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ñu ngi leen di ndokkeel di leen balwaq di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun seen chaîne bii di Firi Guent TV officiel ñu ngi leen di ñaanal rek li may ñaan bis bu ku am gént dugal ci suñu page YouTube nga bind li nga gént soo bindee rek yow da am réponse maanaam da nga gént ab dàll di recherche ku gént dàll sur YouTube bindal suñu tur wala nga dugg si page YouTube bind ne da nga gént gis dàll ñu jox la vidéo yi ma def ci dàll yëpp nga seetaan da nga am sa réponse foofu da gént gis ab xar demal bind gént gis xar ñu jox la vidéo yi ma def ci xar yëpp nga seetaan loolu moo gën a yomb ci yéen yow bi nga yeewoo ci sa lal rek moom boo dem nelaw ba deux heures du matin nga yeewu gént mun nar laa tiital mën nga jaar ci yoon boobu soo ko defee dangay am sa réponse bu dee géntu bu baax la alhamdulilah bu dee da gis safaan boo xëyee nga mën a yeewu def sa sarax moo gën nga di ma envoyé message di xaar pour ma jox réponse di fayaat 500 te mën naa gën a gaaw ci yow ñun loolu moo ñu gënal loolu moo ñu gënal danañu fexe ñun suñu suñu uh, yéene def maximum des vidéos lépp lu xam ne jàpp na nit ñaa ngi ciy laaj di ci commenter ñu def ci loolu ay vidéo loolu mooy li nga xam ne moom moo li gënal ñu ngi ñaan bokk yëpp ñu jaar foofu koo xam ne nag loolu nga bëgg ñu jot ñu nga bëgg ubbil nañ leen beneen bunt mais ngeen xam ne 2000 francs ngay fay su boobaa mën nga woote téléphone fay 2000 ñu jox la sa réponse incha allah loolu dañ ko defoon ci suñu page bi nga xam ne pour français la mais comme voilà dafa am nit ñoo xam leen gënal mënoo ci dara noonu lay doxee léegi tey ñu ngi ñëw ak yéen ci beneen buntu mooy gént sol yére bu bees walla jënd yére bu bees nga jàpp ne première partie la dafa des yeneen ñaari partie yu ci ñëw moo tax dañuy def nànk nànk pour mu ngeen mën a am lu doy incha allah suba ak ginnaaw suba dugal li ci topp li ngay njëkk li ngay njëkk jàpp mooy danga gént sol yére bu bees jënd nga yére bu bees. wala yëg nga ne changé nga am nga yére bu bees booy sol bokkul ak dañ laa jox yére dañ laa indil cadeau yére yooyu dana ci ci vidéo yi ci topp li ngay njëkk a jàpp mbu mu bees ci gént baax na bu amul benn sikk dana ñëw ci bu amee ay sikk baax na ci gént lan lay firi dana firi xéewal ci aji gént ji dana firi recherche maanaam koom dana firi mbégte ak bànneex gën firi stabilité maanaam dal ci jàmm ak salaam ci aji gént ji baax na ci gént da gént changer summ yére bu màgget ci biir gént gi sol yére bu bees ci biir gént gi sol yére bu bees summi bu màgget sol bu bees ci biir gént gi par exemple changer nga sa yére rek bu bees bokk na ci muy firi léeg-léeg day firi yow aji gént nga nekk nit koo xam ne da ngay changer comportement changer dundin amoon nga benn melokaan boo xam ne gënul ci jikko ju rafet nga am jikko bu doy waar nekk nit ku bëgg fo nit ku bëgg jaaxaan nit ko bëgg yàq nit ko fonkul jaamu yàlla dana firi léeg-léeg da ngay changer dundin boobu amoon nga ay jikko yoo xam ne yow wóor na la jikko yi baaxul day firi yàlla daf lay dimbali soppi sa jikko kon li ngay jàpp baax na daawul julli bunt bi dina na ubbeeku et cetera koo xam nag yooyu yëpp dala cay fekk amoon problème boobu dafay firi jógee fi nga ne ci tolluwaay dem fi feneen fu gën kawe yére bu bees nga sum nga jën nga sol mais yére bi yënga ne lu bees tàq la ci tailleur bu la jógee te magasin bu la jógee mais da nga gis dafa tilim bu mi daa tilim baaxul ci gént day firi yow aji gént ji soppeeku da laa të nit ku wut jara wut ku la ñaanal wala ku la dimb li nga wala boo ngay génnee sarax ndax day fi di bëgg tegu si yoonu jub toujours mais muy jafe ñaare mën na jógee ci pexe seytaane wala tàggante ci yow da nga gént yére bu bees bi nga jënd sol ko wala yére bu bees bi nga sol dafa nekk yére boo xam ne dafa xew modd la wala tisi bu xew la ñëpp wutendoo ko nga yëg ne yow am nga yére bi sol ko dafay firi la relation bu baax ci sa diggante ak say wóllare sa diggante ak say famille say xam ak yëpp ginnaaw ba mu firee yi mën a njëkk wax ci kaw ah, léeg-léeg boobu dina ci dolleeku yére bi nga changé nag gis nga ne yére bu yére bu xeewi la yére bu xeewi nga jënd nga jënd sol ko maanaam yëg nga ne sol nga ancien modèle bu yàgg lan lay firi ci gént ñaari mbir moo ci am ñenn ñi dañu firi dañu wax dafa firi yow nekkuloo nit ku organisé nekkuloon nit ko xam da ngay anticiper wala boo buggee ci dugg ci dara nga di ci xalaat di ko topp pour def ko ñu ne foofu baaxul day firi nit ku yàkkamte ci gàttal am keneen ku ne déedéet baax na kay day firi say bëgg-bëgg yëpp day ñëw bett la maanaam booy am soxna day nekk loo xam da nga naan man de foogeewuma ko woon sax mbir mi dalay bett boo dee am oto dañ ñëw ñëween du la bett boo xam ne naan lii de foo ko yóbbu ko woon sax boo doon xaar wut ay kayit amutoo si yaakaar day jékki-jékki mbir mi bett loolu beneen wax ju ci am na alaakulli aalim ñaari wax yooyu la ci boroom xam-xam yi wax bu ci wér nag loolu yàlla xam danga gént jënd yére wala sol yére yére bi ngay sol mu xotteeku ci biir gént baaxul day firi tolof tolof ak xat-xat yére bi nga sol summi nga yére sol yére nga gis na yére bi dafa xotteeku baaxul day firi ay xat-xat wala tolof-tolof yu métti ci gén gént ji nga jënd yére bu bees taq nga gis ne yére bi daa am fu bënn daa am xotteeku xotteeku bu ci nekk baaxul day firi ñàkk ku tar baaxul ci gént yére bu xotteeku ak yére bu cëkk baa ñoo yem ci gént baaxul dana firi yi ma la wax bu njëkk bi mooy tolof tolof ak i xat-xat surtout yére bu xotteeku jënd yére mu nga fekk ci mu bënn dana mu bënn wala mu am turub wala mu xotteeku bu ñaaw dana firi ñàkk ku tar waaye ñoom ñaar maanaam yére bu jëkk wala bu xotteeku léeg-léeg li ñu firi day firi yow aji gént gi nit ku sàggan ci sa diine nga sa julli matul sa koor respecté woo ko li la yàlla sant li nga ci def barewul ala kulli xaal koy faral di gént tuubal te nga gaaw dellu ci sa boroom te xam ne yaa ngi ciy caaxaan gënul ci gént balaa ñuy continuer ñu ngi leen doon woon fan yi njaq yi nga xam ne ñu ngi koy faral di liggéey fan yi njaq yi ñu ngi disponible ba léegi comme ni ñu ko waxee ñeenti njaq la ñaar yi dafay raxas sa yaram bu baax ba mu set ci liggéey ci cat ci seytaane ci rab ak yeneen ñaari njaq yi muy àndal yoo xam loolu pour ubbeeku la koo xam ne yaa ngi ko yittewoo mën nga jokkoo ak ñun bii ñu bu mag a mag la bu bari doole lool ci wàllu ubbeeku ci wàllu njarte ci wàllu ci koy jaay ku bëgg yàlla defal la borom kër ku bëgg kaaraange ak yu mel noonu incha allah mën ngeen jokkoo ak ñun ci suñu numéro yi mën nga remonté dem ci yeneen vidéo yi rek di gis numéro bi incha allah sinon dana leen ko defal ci commentaire yi incha allah da gént nag jënd yére dem nga ca koy jaay yére mu jaay la yére dana ñëw ci ñawlu ci tailleur ak yooyu dama ci ñëw moo tax ma ne vidéo yi dafa am première partie deuxième partie bu troisième lan lay firi ci gént baax na lool ci gént dana firi jëf ju baax maanaam nga nekk nit ko xam ne yaa ngi tegu ci yoon yàlla def lu baax nit koo xam ne kuy def lu baax foo toll nga ci jaamu yàlla di sarxe di julli di jëflante ak ni ñi jëflante bu rafet jënd yére bu bees loolu dina ko firi bu ngeen ma dee topp nag ci ginnaaw dama wax jënd di sol wala yëg di changer kii dama dangaa génn dem nga si biti bi jënd fa yére yére bi nga jënd amul benn sikk xotteekuwul bënnul tilimul baax na ci jënd yére ci jigéen ji ëmb ñaare dañoo fiir day fiir doom bu jigéen ci sa ëmb boobu da nga ëmb nga gént dem nga di jënd ay yére dana firi doom bu jigéen célibataire jigéen nga nga gént di walla góor nga nga gént di takk di di jënd yére bu bees célibataire bu góor ak bu jigéen lan lay firi day firi wante ak nit ku am or nit ku ñu ormaal maanaam bu dee jigéen jàppal ne mën na laa ngoro si góor gu am góor gu ñu am daraja góor gu am gu nit ñu ormaal góor gu tedd bu dee góor kazaalik dina firi wante ak jigéen ju tedd jigéen ju baax ngoro goo xam ne dina mujj ci sëy incha allah jigéen nga nekk ci néegu say gént jënd yére day firi stabilité sociale stabilité familiale bu la fekkoon ci jafe-jafe day firi tolof tolof yoo xat-xat yi dafay jeex ñenn ñi ne déedéet day firi tukki ak wërsëg ci moom ñaar yooyu maanaam mën naa firi tukki mën naa firi wërsëg ñetti wax yi lañ ci wax yépp a baax ci jigéen juy sëy danga gént di ñaw sa yére bu xotteeku ci biir gént gi sa yére xotteeku la nga di ko ñaw waaye nga gis ne yére bi ñaw bi dafa jafe lool wala ngay ñëw surtout nga gis ne foo ñëw du kii baaxul day firi njabar day firi liggéey da laa jàpp day firi sexar ci yow bu fekkee ne yënga na ñaw bi jaar na yoon amul benn tolof-tolof amul benn problème nga toog normal di ñaw normal amul benn jafe-jafe ñiy firi gént ñu bari dañuy juum foofu dañ lay wax ne gént ñaw sa yére njabar laa jàpp déedéet bu ñaw bi jafee wala ngay ñaw muy xotteeku lay firi sa yaram liggéey da cee nekk bu dee amul benn problème day firi mucc ci ay gàllankoor ak yàqu-yàqu wala mucc ci njabar wala boog yéwanal ci sa ay mbir léeg mu dellu ci sa personnalité yow nga nekk nit koo xam ne kuy defaree ay diggante nga wala kuy rafetal say mbokk ak say dëkkandoo nga ala kulli xaal buntu bàngoog di première partie bi ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé ku am laaj ngeen jaar ci yoon yi ma wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.